salaamaaleykum na ngeen def te moom maa ngi Paris maa France te damay dem ci benn parc bu tudd parc Bercy mooy benn parc musculation ci parc bi mën nañu def ay traction mën nañu def ay pompe mën nañu def ay dips mën nañu def lu bëri donc damay dem foofu damay dem xool peut-être damay gis ay sénégalais donc peut-être damay waxtaan ak ay sénégalais xamaguma donc euh, ñu dem ba si kanam fii mooy Paris donc fii Paris laa nekk je suis à Paris Paris laa nekk maa ngi Paris parc bi sorewul damay dox tuuti Paris dafa mag dëkk bu mag la man Paris laa juddoo waaye du Paris laa màggee beneen région laa màggee mais Paris en tout cas neex na neex na ci man am na lu béri parc Bercy a ngi nii fii mooy parc de Bercy waaye léegi am na ay travaux quoi waa ñu dem. salaamaaleykum yéen ñëpp tey moom ñu ngi Paris ñu ngi France. ñu ngi ci parc Bercy te gis na sama benn waay sénégalais moom Sénégal la jóge donc sénégalais la ça na nga def. waaw ça va maa ngi fi yow nag. waa ça va maa ngi fi rek yaa ngi si jàmm. si maa ngi si jàmm alhamdulilah. yow noo tudd. man Arouna bi yaay. Arouna. oui nga. waa sénégalais laa kañ nga ñëw France. Espagne laa nekkoon. ah Espagne nga nekkoon. Espagne laa nekkoon Espagne fii France un an laa fi fii. ah ok mais Sénégal nga jógee. oui Sénégal laa jógee dem Espagne def 15 ans Espagne après ma ñëw ah, France fii. kon dégg nga espagnol tamit. waaw dégg na espagnol. hablas espagnol. si <laughs> hablo espagnol. <laughs> perfecto noo gisee France neex na wala neexul. yaakaar na man Espagne moo gën a neex France. lu tax. ndax Espagne seen vie ak fii bokkuñu quoi. ah Espagne seen climat bi ba pare Espagne. seen affaire yi comme fii xam nga. waaw waaw loolu mooy différence. Espagne moo gën a tàng que fii. waaw Espagne moo a tàng fii nag loolu moom dëgg la. ok fan moo la daxal France wala Sénégal. Sénégal. Sénégal <laughs> Sénégal moo daxal. waaw Sénégal kay amul ma amul morom amul morom kay. kon léegi da nga bëgg ñëwaat Sénégal quoi. bien sûr. bien sûr léegi lan moo tax nga ñëw France. France fii c'est que damaa am benn liggéey fii. waaw léegi moo tax ma jóge Espagne ñëw fi Paris nga dëkk. waaw Paris laa dëkk fii nii Ivry. ok baax na léegi da ñëw ci parc bi souvent. oui damay ñëw fii souvent presque tous les jours hein. tous les jours oui. nga fii dafa bëri ay yeneen pays d'Afrique Congo. Mali Cameroun. partout franchement. waaw fii gis naa ay sénégalais gis naa ay maliens ay camerounais. fii que ñëpp fi nekk. franchement. ok léegi lenn la bëgg xam. Hmm. kan moo gën ay aay entre man ak yow quoi yow da nga aay. man tuuti rek. tuuti rek ñetti ak traction nga mën a def sans s'arrêter ko sans arrêter mun naa def. sa dépend ça dépend de toi ça dépend <laughs> après ñu xool quoi kon da nga aay. <laughs> xool ko waaw après mën na xool ndax da nga aay. Bah oui, bien sûr. Bon, arrêtez là, ça, qui Ça t-shirt Mahol Bien sûr, pas de souci. Ok, les gars Ouais, les gars, dem sommes. ñu sommes. ñu dem man kay pare naa. kii moom dafa ay. <laughs> ñu dem kay kay kay kay. waaw franchement waaw da nga ay quoi da nga musclé quoi. tuuti rek tuuti rek. <laughs> ok tey moom dañuy def benn défi dañuy def ay traction te ku mën a def le plus de traction possible day gagné. d' accord pas de souci ñu dem. baax na baax na kay. ok ñu def loolu. ñu def ko La mort. Anthony, il est où Anthony ne peut pas, mon gars. Anthony, putain. J'ai fait le gars. Anthony. Anthony. Attention. Anthony. Voilà. Anthony. Là, c'est en vidéo. C'est pas, c'est facile. Voilà, c'est mort <laughs> Voilà, Oh putain! 40 secondes. bon man def naa ñaari fukk ak euh, juróom benn. moi je fais 35. moi je fais 35. 25 les gars. Ça veut dire qu'il est champion lui. Il est chaud les gars. Il est chaud. Yaa ma gën a fort quoi. Yaa ma gën a fort. Yaa ma gën a fort. Yaa ma gën a fort. Ndax ñu ndax ñu chaque jour ah, fii la ñuy nekk. Chaque jour fii la ñuy nekk. Moom mu ñëw mu def 30. Non, ça veut dire les gars, respect. Sénégal moo dàq France. Sénégal da gagné. Respect, respect à toi. Merci. C'est trop chaud. Je pensais t'allais t'arrêter avant et tout, je vois tu ah continues. Moi, je vois. Moi, je sais pas. Comment comment ma promotion est 10 nga arrêté xam nga. mais mais ku di la mën a wax. Ah sama dafa tàng de. merci jërë ngeen jëf. léegi vidéo bi pare na donc euh, Sénégal daan nañu France man damay entraîné wat comme ça dina gën a aay dina gën a for voilà en tout cas j'espère que neexoon na ñu sente beneen yoon donc ba beneen yoon incha allah.